allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci émission fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy Léopold Mendy mbokk yi ñu sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu baaxee ñu fekkee bisnikite ni waaye mu bokk ci xéewalam yam ñu xéewalal mu doon xéewalu ibaada xéewalu jaamu yàlla ja tollu ni gannaaw bu ñu déggee noddukat bi di noddu jamono bi nga xamante ne moo ngi nekk di yëglu la nga xamante ne mooy waxtu yu julli suba te yenentu bi sallallahu alayhi wasallam baaxe xeet bi lenn la nekk ci ngeneelu nodd ba noddkat bi di yëkkati gannaaw bu ñu déggee muy wax màggaayu yàlla mu toftal ci ne mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg kudut yàlla moo ngi seede ne Muhammad de dégg la yàllaa ko yónni mu daldi àgg ñun ci biir nodd bi muy woote ne kaay ci jaamu yàlla baleen di jokkaleek seen borom te muy julli waay ba léegi muy wax ci biir woote boobu kaay leen ci texe bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci nelaw du ngeen ko amee ci am am du ngeen ko amee ci lenn lu dul jokkale kaay ba di jokkale seen borom te mooy julli mu daal di si teg ne amul dara li fi gën a màgg lu dul màggaayu yàlla fi nekk di lu màgg mu daldi ci si teg ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku dut yàlla baat yi noddkat bi di yëkkati ci jamonoy suba mu doon waxtuy fajar mbokk yi bu ñu xoolee na dëkkuwaay di riiree jamono jooju nga dégg noddkat yi bilaal yi ñu naan ñu yëkkati baat yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lam ci tegtal ni képp ku dégg noddkat bi di noddu nga topp ko di baamu baat yamuy wax nee na bu noddkat bi jeexale noddu boo ci tegee ñaan ba toll ni walla ñaan ba mu tegtal ne képp ku ko ñaan gannaaw bi nga déggee noddkat bi di yëkkati baat yi nee na médité nga ràmmub bi keroog bés pinc moo tax mu ne njeexantalu nodd bi ne képp ku ne allahuma rabba haadihi daawati tamma wa salaatu al qaa'ima keroog ñaan bi di jeex mu ne la xallat lahu shafaati yowm al kon mu doon gëneel bi nga xamante ne képp ku dégg noddkat bi di baat bi nga xamante ne mooy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 حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah daa'iman wa abadan laa ilaha illa allah allahumma rabba haadihi dacwati taama wassalaati alqaa'ima aati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan aaliya rafi'a wa ba'athu allahumma maqaaman mahmuudan lati wa'adtahu innaka laa tuxlifu almiicaad radaynaa billahi rabba wa bi islaama diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula mbokk yi siira bi la nga xamante ne mooy kaddu yi nga xamante ne moom la ñu yëkkati nii léegi sallallahu alayhi wa sallama nee na képp ku dégg baat bi nga daldi noot sa bannaaxu bakkan nga xeexax sa banneexu bakkan ba nga géem góor-góorlu dem wuyu woote bi nga xamante ne moom lañ la woo wooni yenent bi nee na keroog bés pénc boo jàppee sa dunduñ doxalin bi sallallahu alayhi wa sallam nee na médité nga ràmm jamu war a ràmm jaamu yàlla yi ëllëg bés bu dee nii nga jàppoo sa dund ding ci bokk waaye mbokk du ngeneel boobu rek nekk ci julli fajar walla julli suba comme waxtu bu joxe waxtu su néew ci ginnaaw ngénneel ya fa nekk bari nañu lool bokk na ci ngénneel ya fa nekk ngénneelu julli fajar wala suba sallallahu alayhi wa sallama nee na ci xadisu abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal yataaqabuuna fiikum malaa'ikatu billeyli wa malaa'ikatu wa yejtamicuuna fi salaatu alfajr wa salaati al ashr yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu mbokk yi bi léegi ci ngeneelu julli fajar wala suba yenentu bi ne yataaqabuuna fiikum malaa'ikatu bil leyl wa malaa'ikatu bin nahaar neena na dinañu ñëw nemmeeku ci leen dinañu ñëw seet si leen ay malaaka yi nga xamante ne ñooy nekk ak ci guddi waaye dina am ay malaaka yoo xamante ne dinañu ñëw nemmeeku ci leen waxtu bu ñu naan bëccëg malaaka yi ñëw ci kaaru guddi ñooñu ñoo fanaan ak ñun ba waxtu wii waxtu wañ doon julli fajar yéeg nañu malaaka yu war a ñëw ci bëccëg ñoomit it dinañu wàcc ci waxtu wi ñoomit it yonentu bi nee na wayajtamiuuna dinañu daje fi salaatil fajar ci waxtu yi fajar comme waxtu wi ñu nekk ni wa salaatul asr ak jamono yi waxtu yu julli ba ñu naan takkusaan kon malaaka yi dañuy sanse kaar bu ñu déggee galanu maana xadis bi dinañu gis ne malaaka ya war a ñëw kaaru suba ñoom waxtu wii la ñuy yéeg malaaka ñu war a ñëw kaaru bëccëg ñoom takkusaan la ñuy ñëw mbokk yi képp ku bàyyi xel ne malaaka yooyu bu ñu delloo fa yàlla na ko yonentu bi waxee sallallahu alayhi wa mu ne summa yaruju alladina baatu fiikum fa yasaluhum wa huwa alamu bihim nee malaaka ya ñëw ci kaaru guddi àndandoor ak yéen ci waxtu guddi ñooñu de dinañu yéeg ci kaw bu ñu yéegee ci kaw buur yàlla tabaaraka wa taala da di laaj te moo leen gën a xam lam leen di laaj mooy kayfa taraktum ibaadi moo ne yéen de na ngeen bàyyee woon sama jaami nu ñu mel ba ngeen doon jóge ko ci suuf nu ngeen bàyyee woon sama jaami nañ fa nekkee woon fa yaquluun malaaka yi daal di tontu borom bi ñu ne ko taraknaahum wa hum yusalluun bàyyi nañ leen fekk ñu ngi julli wa ataynaahum wa hum yusalluun buñ leen doon fekk si ñëw nañ fekk leen ñu ngi taxaw di julli mbokk yi malaaka yi seede ba ñuy seede nii jaamu yàlla ya nekk ci suuf jaamu yàlla ya nekk ci bérébu jullikaay yi sama frère yow mi waxtuy takkusaan fekk ci terrain football bi est-ce que gis nga sa bopp ci malaaka yu war a ñëw tisbaar yow tisbaar fan la lay fekk bu dee tisbaar da lay fekk ci sàppe si njëkk si wala ci biir jàkk ci santal yàlla wu dee takkusaan da lay fekk ci feneen fudul ci jàkk ji na nga taxaw seetal sa bopp ngir nga mun a bokk ci ña malaaka yi di seede waaye yow sama frère bi léegi xoolaatal sa bopp est-ce waxtu yi fajar malaaka yay yéeg ci kaw est-ce que jamono ba ñu yéeg bàyyi nañ la nga taxaw ci sappe si nga xamante ne ñooñu ñooy ñu daan joxe waxtu yi fajar est-ce que malaaka yi bàyyi nañ la ci jàkka ji waxtu yi fajar nga taxaw nar a joxe waxtu yu julli bu dee waaw santal yàlla waxal alhamdulillahi rabbil alamin waaye bu dee déet bu dee waxtu yi fajar dalay fekk ci boîte de nuit wala ci mbir mbàjj wi wala nga nekk ci anan bu utik la malaaka yi di séede fa yàlla ne noonu lañu ñu bàyyee jaami yàlla yi war ngaa toog taxawaat def retrouvaille rétroviseur xoolal sa ginnaaw ngir nga war a mën a bokk ci ña malaaka yi di seede kon ngeneelu waxtu yu julli suba ngi nii ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu mu ne naka suñu yonent bi salaa sallam daf ñu ne yataaqabuuna fiikum dinañ leen nemmeeku ci malaaikatu bi leyl malaaka ya nekkoon ak yéen ci guddi wa malaaikatu bi nahaar ak malaaka ya nara a nekk ak yéen ci bëccëg wa yejtamiuuna fi salaatu alfajr wa salaatu al asr dinañu sanse kaar dinañu wuutu wante ci yéen ci jamonoy fajar ak jamonoy takkusaan summa yaruju alladina baatu fiikum gannaaw si ñafanaanoon ak yéen ñooñu bu ñu ci kaw fa yasaluhum wa huwa alamu bihim borom bi daal di laaj te mooleen leen gën a xam fu ñu jógee ko ak ana lañ fa bàyyi ana nañ nañ nan la ñooñu nekkee foofu yàllaa leen a xam loolu mais ànd ak loolu fa yaquluun gannaaw bu laajee malaaka yi nu ngeen bàyyee sama jaami fa yaquluun malaaka yi dañuy tontu ñu ne yàlla taraknaahum bàyyi nañ leen waxum yu salluun fekk ñu ngi julli wa ataynaahum bañ doon ñëw fekk nañ leen ñu ngi taxaw di julli waxtu yi takkusaan waaye bañ daan jóge ci kaw suuf bàyyi nañ sa jaam yi ñu ngi taxaw di julli la nga xamante ne mooy waxtu yi fajar mbokk yi yal na jaam yi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax la nga xamante ne moom la yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam kon yow doomu aadama bi gannaaw bi nga joxe waxtu julli fajar fekk yàlla yénkee wal na nelaw bi nga xamante ni moom nga doon def gannaaw boo ci noppee yonent bi nee na na nga tudd baat yi mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur yal nañu yàlla déggaloo xadis bi yal nañu yàlla manloo ñu mën a jëfee la bi di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci waxtu wi ci daara ji mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi nekk ci thème bu am solo boo xamante ne mooy amalo saalix jëf ju baax bi nga xamante ne doomu aadama ju ne war nga ko war a mën a waajalal sa bopp waaye war nga ko war a mën a créer sa bopp ndax nga am bonus bu toll ni ëllëg bés penc bu la ko yàlla fayee di nga kontaan ba tax na yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñuy wax ci alquran ci sar yu fasante ko képp ku jëf lu baax képp ku jëf yiw defaruloo ko kenn sa bopp nga ko defal moo tax mu ne man amila saalihan fa li nafsihi képp ku jëf lu baax képp ku jëf lu yiw képp ku jëf lu nit ki war a jëf te mu nekk amalu saalix di jëf ju baax defaruloo ko kenn sa bopp nga ko defal te jëf ju baax nag xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawa an abi hurayrata radiyallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal sab'atun yudilluhum allahu taala fi dillihi yowma laa dilla illa dilluhu imaamun aadil wa shaabun nasha'a fi cibaadatillah wa rajulun qalbuhu mucallakun fi masajid wa rajulaani tahaaba fillah ijtama'an calayhi wa tafarraqan calayhi wa rajulun dacatuhu imra'atun zaata mansabin wa jamalin fa qaal inni axaafu llah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta laa taalamu shimaaluhu maa tunfaqu yamiinuhu wa rajulun zakara allahu xaaliyan fa faadat aynaah rawaahu buxaari mbokk yi yalna na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot jëf ju baax jooju ñuy junju ci aaya alquran ba suñu borom ne képp ku jëf lu baax sa bopp yenentu daldi daal juróom ñaari jëmma ngi nii ñoo xamante ne ëllëg bés pénc buuru yàlla moo leen di tabil ci ker goo xamante ne amul benn ker budul kerub yàlla amul benn tirmin ba nga xamante nit dina ko fa war a mën a installé bu dul tirmin ba yàlla installé tirmin yooyu mu doon ker yoo xamante ne bu ñu keru yàlla nag ci taxta zillu arsh rahman xel muna ko xelaat kenn na ko koo imaginer moo tax sahaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu mu duñu nettalil nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ne juróom-ñaari jëmm ngi nii ñoo xamante ne yudilluhum allahu keroog bés pénc yàlla moo leen dugal ci ron ker ba mu leen jagleel yowma laa dilla illaa dilluhu bés bi nga xamante ne amul benn ker bu dul kerub yàlla mu jiital si ne imaamun aadil kooku dinañ ko tàbbil dina dugg ci ron keru yàlla jooju mu doon njiit bi nga xamante ne njiit bu jub la njiit bu maandu njiit boo xamante ne la mu jiite walla la mu nekk di doxal mu teg ko ci yoon mu teg ko ci jub waaw comme slogan suñu waa réew mi jub jubal jubbanti waaw jub jubal jubanti mooy njiit boo xamante ne dafa jub di jubal waaye di jubanti waaw mun naa nekk borom kër mun naa nekk njiitu réew mun naa nekk njiitu entreprise mun naa nekk njiitu képp koo xamante ne fa nga nekk te ñuy def la fa njiit xadis bi njël bennu joxoñ ba mu joxoñ ci njiit mën nga si gis sa bopp ñaareel bi mooy wa shaabu nasha fi ibadatillah jeune bi nga xamante ne daa noot bànneexu bakkanam waaye mu tàggat boppam ci xeetu jaamu yàlla yi koo xamante ne jeune la mën na nekk xale bu góor comme mën na doon xale bu jigéen lépp luñ ne lii la yàlla santaane bu dëpp ak njàngale yonent bi ca lay nekk lépp loo xamante ne ñu ne lii la yàlla xaraamal te yonent bi jàngalewu ko da ciy sore da koy daw comme nu muy dawee la kay lor kon kooku mooy ki tënk boppam ci xeetu jaamu yàlla yi di ñaareel bi ñetteel bi mooy wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid góor goo xamante ne daal xol bekk xel bek xëtër bi yëpp mu ngi aju ci jàkka ji bu gisee lañu war a defar jàkka ja da koy taxawee bu gisee moket yi dañoo yàqu da koy géem a taxawee wala mu géem koo campagnal bu gisee pinturu jàkka ji dafa froissé da koy géem a taxawal ànd ak loolu yëpp waxtu yu julli jàkk du ko raw ci jàkka yi waaw moo xam jàkk ba nekk koñam la moo xam jàkk ba nekk ci biti la moom daal fu mu déggee nodd daal day géem a góorlu jege jàkka ji xool bi ak xel bi yëpp moo ngi déppoo ak jàkka ji bu joxee waxtuy julli day xemmeem day gaawalantu day yàkkamti waxtu yu julli jotaat ba mu dem joxe waxtu yu julli boobu ak lépp luy ñoŋal béréb boobu di néegu yàlla bi nga xamante ne mooy jàkk ji xol bi yëpp mu ngi aju si jàkka yi waaw moom bu gisee jàkka ju froissé sax da dakoy da métti hmm, waaw jàkka joo xamante ne moket yi baaxuñu ba jàkka joo xamante ne sorool bi dafa menacé wu jàkka joo xamante ne peinture bi baaxul peinture bi dafa froissé moom daal bu doon sagom daal nii gam na bañ a correct waaye jàkka yàlla daal ne ñoŋ na rafet waaw noonu la ñuy déggee wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid góor goo xamante ne xol bi yëpp mu ngi aju ci néegu yàlla bi nga xamante ne mooy jàkka ak keneen ki mooy wa rajulaani ak ñeenteel bi wa rajulaani ñaari góor ñi nga xamante ne tahaba fillah jëmm yàlla dog nga tax ñu soppante ji taman alayhi ba ñuy daje mbiru yàlla leen di taxa dajeloo wa tafarraqan alayhi bu ñu demee bay taxale ko tamit mbiru yàlla dong nga tax ñuy taxale ko waaw juróomeel bi mu ne ñu wa rajulun daatuhu imraatun zaata mansabin wa jamalin inni axaafullah juróomeel bi mooy waajoo xamante ne ndaw su rafet ndaw si am barke ndaw si bokk ndaw su bokk ci borom yax ju waaw comme ni ko gars waxee ndaw soo xamante ne dafa taaru dafa rafet waaw mu nekk jongama joo xamante ne macha allah mu bokku fu Euh, giir gu mag waaw mu woo ñu bokk mooy yàlla waaye góor gi ne ko inni axafullah man dama ragal yàlla damay sóor yàlla ci lang may woo nii góor googu tamit ñu ne kooku dina bokk ci ñi yàlla di dugal ci ker gu nga xamante ne amul benn ker bu dul kerub yàlla keroog bés pénc euh, xanaa juróom benneel bi mooy wa rajulun bi sadaqatin ab waayaa ngi boo xamante ne sarax na ab sarax soo xamante ne dakaa nëbb sellal ko fa axfaaha mu nëbb ko mu sellal ko xatta laa taalamu ba xamul chimaaluhu loxo càmmoñam maa yi mu fiqu la mu dépensé yaminuhu waaw góor goo xamante ne nëbb na sarax ba muy sellal na jëf ba muy ci anam joo xamante ne loxo ba bokk ak loxo ndeyjoor ci jëmm jooju sax loxo càmmoñ ji xamul lan loxo ndeyjoor bi joxe fii yonent bi loxo la junju fii waaye nag nga nëbbu say mbir sa jëf ju baax ba ki nga koy jox kooku dong mooy xam vidéo du fa am yoon selfi du fa am yoon Instagram du fa am yoon nit ñi ñuy jëf seen jëf ju baax waaye jamonoy xarale ju bees ji ñu yor nii smartphone ya ñu yor nii vidéo beeg anam yoo xamante ne loolu lañ ci boole waale day dem ba day day day day maanaam tiyaabu ñu ñu war a am ci suñu jëf ba ñu war a sellal ngir yàlla da koy wàññi waaw tiyaabu bu ñu war a am deux cent pour cent mun naa wàññi vingt wala trente waaw te donte baax na sax waaye bu ñu amee deux cent pour cent loolu muy liggin gën moo tax yonent bi ne wa rajulun ab góor goo xamante ne tasaddaqa bi sadaqatin dafa joxe sarax soo xamante ne fa axfaaha mu nëbb ko sellal ko hatta la taalamu shimaaluhu ba loxo càmmoñ ba nekk ci beneen wet bi xamul ma yunfiqu yaminuhu la ndox loxo ndeyjoor bi joxe waaw sellal sa jëf ñoŋal ko jékkal ko ba càmmoñ bi sa xamul la ndeyjoor bi joxe ki la gën a sës ña nga bokkal kër na nga bokkal koñ nga dimbali kenn koo xamante ne soxla na te aajoo na ndimbal mais nga def ko si sutura boole ci pattaaral ba kenn ku la jege xamul sax ni kii li mu nekke nii yaa ko jëlee ci coono bi mu nekkee ni façon sellal boobu la yonent bi di joxoñ ci xadis bi salaa sallam nee na góor gu dikkee nii kooku tamit dina bokk ci ñi yàlla di dugal ci ron keram moo ne juróom-ñaareel bi mooy wa rajulun zakarallahu xaaliyan ab waajoo xamante ne daal daa dugg ci ruqam mu toog di xalaat kawteefu yàlla ak bàkkaaram moom est-ce yàlla dina ko jéggal muy xalaat kawteefu yàlla muy xelaat màggaayu yàlla muy xelaat puissance bu yàlla am muy xelaat melokaanu yàlla ci asamaan muy xelaat melokaanu yàlla ci jaww ji muy xelaat yàlla di fàttaliku yàlla noonu mu toog di xelaat kawteefu yàlla di fàttaliku yàlla but yi daal di taa ñaari but yi daal di taa ñaari but yi daal di rongoñ waaw nee rongoñ boobu joyloo waajooju ci jamono ba mu toog di fàttaliku yàlla fa kenn nekkut moom kese fa nekk yonent bi nee na ku jikko jikko wi yow it di bokk ci ña yàlla di dugal ci taxta zill arsh rahman di nga bokk ci ña ñi yàlla di dugal ci yàlla bi nga xamante ne moom la yonent bi ne juróom ñaari nit nii yàlla dina leen dugal ci ron keram ker bi nga xamante ne moom la yàlla di préparer termine bi nga xamante ne bâche bi nga xamante ne ëllëg buur yàlla da koy waajalal ñu lombo juróom-ñaari jikko yi xadis bi Buxaari moo ko solo mbokk yi bokk na ci xulaasa wala taaliqaat ya ñu war a mën a jëlee ci maana xadis bi ay commentaire yu ndaw yoo xamante ne waxtu bi moo ñu xoj waaye nag euh, jëmm ju nekk ci juróom-ñaari critères ya yonent bi melale fii war nañ ci war a mën a taxaw ci waxtu su gàtt ñu jaar jàll ndax waxtu bi ñu ñuy signaler ne jot na commentaire bu njëkk bi mooy njiit bu jub waaw lañ la dénk na nga ci doxal jub na nga jubal na nga jubbanti yow jeune bi sa jeunesse bi nga fekk yaa ngi dund jëlal sa jeunesse bi nga ràppal ko ci topp yàlla ak topp yonent bi waaye yow ñaari jëmma yoo xamante ne da di soppante nga la waaye bu soppante ngir intérêt àddina na ngeen soppante ngir yàlla bu ngeen di dajee na yàlla tax bu ngeen di taxale ko na yàlla tax wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid waaye yow mi nga xamante ne sa xol nafa fa lépp nekk waaye jàkka yàlla néegu yàlla na ci am espace yoo xamante ne leneen lu dul néegu yàlla loolu du occuper sa xol na sa xol am espace bu yaatu ba nga xamante ne toppatoo néegu yàlla entretien néegu yàlla mooy lay fees sa xol te mooy la ngay tànn mu doon sa choix mu doon sa bëgg-bëgg su ko defee yàlla tàbbil wala kerku bés penc si juróom-ñaari nit yamuy dugal ci ron ker bam leen dikk waaye nag yow mi nga xamante ne ah yàlla nattu na la ci sa dund ab ndaw su taaru borom barke bokk ci yax ju rëy mu woola ngeen ànd ci faaxisa ngir ngeen mbokk mooy yàlla nanga ko ne ah yàlla mi gis lépp te dara umpu ko ci man kooku laa suuraale ba tax na duma la fekk ci lang may woo waaye nag góor goo xamante ne ah booy joxe sarax vidéo mën na si ñàkk am place Instagram mën na si ñàkk place ak li ni mel na nga saraxe nga sellal ko nëbb ko ba kenn ku la jekki sax du xam ne yaa def lii moo tax yonent bi ne góor gu saraxe sarax ndeyjoor bi jëf ko ba càmmoñ bi sax xamul la ndeyjoor bi dépense ba càmmoñ bi xamul lan ndeyjoor bi joxe waaw tellement ñoom ñaar ñoo bokk ci benn jëmm ji waaye loxo ndeyjoor la mu def nëbb nañ ko sellal nañ ko ba loxo càmmoñ bi sax xamul lan loxo ndeyjoor bi joxe waaw yonent bi ñaari loxo yi la fa joxoñ fii waaye nag nga sellal sa jëf bi ku la jege sa xamut la nga jëf loolu la fa bi doon joxoñ sallallahu alayhi beneen bi mu ne waajoo xamante ne dafa dugg ci ruqu mën a kan jëla sa temps ngay ko yàlla nekkoo fi woon ku la fi andi bi fi doon ñëw liir nga lu tuuti nga mënoo xamoo ràññewuloo amuloo kattan ba tey nga doon ponkalum jëmm nga doon ponkal bu ne lëng ana ku la yóbbu ci état boobu marxala bi nga nekk nii état bi nga nekk ne ana ku la fa yóbbu su ko defee yooyu la ñuy xalaat su ko defee mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jëbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha